rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal xaq di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di rafetlu jataay bi ak kàddu yu fi weesu fa tabaarakallaahu di jiital ci ziyaara bi sëriñ Sidi Moxtaar mi nga xam ne moom la caabi Cheikhul Xadim nekk ci loxoom di ci teg Cheikh Moustapha al Karim mi nga xam ne moo yor caabi sëriñ Masamba di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dëgëral ko ba li mu jéene lépp ci liggéeyal sëriñ Massamba ñu ànd ko ak moom yàlla mën na ko yàlla na ko def euh, tey nag dañu bëgg a dugg ci tomb boo xam ne tomb bu yaatu la peeg lu bari ndax xam-xam moo demee noonu tomb bitim moo demee noonu njëkk ñu ñëw ci sëñ Massamba ak xam-xam rek dafa am fu ñuy jaar ndax gëstu moo demee noonu mënuñu tëb rek ñëw dugg ci sañ ma sàmb am dañuy am fu ñu jaar ba agsi xam-xam baat bi rek suñ nee xam-xam dëdd aljahl mooy safaanub réer xam mooy safaanub réer ñi jàngale usul xam-xamu usul biñ leen laajee lan mooy xam-xam ñu xamle ko ñu ne huwa al i'tiqaadu al jaazim al lil waaqia loolu mooy lan ñoom dañ ne pas-pas la nit kii lu muy fas la su ko fasee ba noppi dogu ci mu dëppoog li nit ñiy dund jaazim mooy loo xam dafa dog kon dafay génne njort njort bokkul ci xam-xam moo tax suñu borom bu demee ci biir alxuraan dafa génne ne njort bokkul ci xam-xam inna zanna laa yughni min alxaqi shay'an jort bokkul ci xam-xam boo demee ci jawharu nafis sëriñ bi moom it dëgëral ko foofu ci aaya boobu na waman taallama bila muallimin muhaqiqin fa innahu dhu wahami nee na képp koo xam ne da ngaa jàng ci ab jàngkat boo xam ne saytuwuñ xam-xamam ci ay defe rek ngay wéy kon loolu mooy xamle gi boroom xam-xam yi séddale ko ñetti xaaj am na lu ñuy wax ilmul yaqin xaqul yaqin ak aynul ilmul yaqin xaqul yaqin ak aynul yaqin loolu mooy lan ilmul yaqin sëriñ ahmadu mi bu taaloon otoom wala mu gaare otoom ci buntu kër sëriñ Moustapha ku ñëw na danga xam ne lii mooy oto sëriñ ahmadu kooku am na ci ilmul yaqin loolu mooy ilmul yaqin waaye ndax oto bi mën na dana dem buñ ko taalut ndax oto bi dana daw sëriñ ahmadu jëlee otoom taal oto bi départ kon léegi am nga aynul yaqin na oto baa ngi dox waaye ndax dana àgg njaareem wóorut mën naa paan gasoil moteur bi mën naa couler loolu mooy xaqul yaqin kon bu demee ba ag njaareem am nga xaqul yaqin kon noonu lañ koy leerale kon loolu la xam-xam ko ñett yooyu la mooy ilmul yaqin loo am xam-xam bu wóor aynul yaqin loo xam ne moom dangaa jàkkaarloog moom mushahada lay doon loo xam ne da nga koy seere xool ko xaqul yaqin nag mooy loo xam ne amatoo ci sikki sàkk kon lool la ko boroom xam-xam yi séddalee xam-xam am solo lool ci aw xeet bépp xeet woo xam ne fonk na xam-xam ca kawam rekk lay jëm bépp xeet woo xam ne dafa xeeb xam-xam ca suuf rekk lay jëm loo tax benn waykat melal loolu na al ilmu yarfacu baytan laa imaada lahu waljahlu yahdimu bayta al izzi wal karami nee na xam-xam dafay yëkkati néeg boo xam ne amuti keno mooy dafa yëkkati aw xeet te fekk néeg bu amuti keno mu yëkkati ko waaye nee na ak réer dana mabbu néegu néegu tedd nga maanaam nit ñoo xam ne dañoo kawe woon waaye la leen suufeel mooy ak réer kon loolu lu am solo la lislaam nekk diine joo xam ne diinay xam-xam la ak jëfe moo tax boo duggee ci alquranul karim da ngay gis ne suñu borom subhanahu wa taala tudd na ay aaya yu baree bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko ci ay ahadis yu baree bari suñu borom aaya bi mu njëkk a wax mooy bismillahi arrahmani irrahim yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat danaa yëkkati ñi nga xam ak boroom xam-xam yi ci ay daraja waxaat ci beneen aaya na innama yaxsha allaha min ibadihi dafay am ci balaaxa mooy ragal yàlla ñu ngi ko gën a jort ci ñi nga xam ne dañoo am xam-xam mu waxaat ci beneen aaya ci suratu imran shahida allahu annahu la ilaha illa allah walmalaikatu wa ulul ilm qaiman bilqist laa ilaha illa huwa al azizul hakim bu yàlla seeree ne amul benn buur bu dul moom malaayika yi seere ko boroom xam-xam yi la ca teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci aaya bii ba tey mu ne wa rab rabbi zidni ilman yow suñu boroom nag ma dolli xam-xam kon yàlla suñu yonent bi li mu sàkku ci yàlla mu dolli ko mooy xam-xam kon kooku dafay wane ne lu am solo la ndax ginnaaw yonent bi sàkku na ko ci suñu borom subhaanahu wa taala loola lu am solo la bu ñëwee ci ay ahadis yi yonent bi salaam salaam yi rot ci mu yu wér jëlee nañ benn xadis boo xam ne ci Abdullah ibn Mas'ud la jóge mu ne laa xasada illa fisnatayni xasad foofu li muy tekki mooy ñee nit ki desu ko ñee ci lu dul ñaar bi ci njëkk mooy nit koo xam ne yàlla daf ko jox alal alal jooju mu def ko fu neex suñu borom subhanahu wa taala kooku jar naa ñee keneen ki Abdullahi Mas'ud nee na koo xam ne suñu borom dafa ko jox xam-xam waaye bi mu joxee xam-xam ba noppi mu di ko xamle di ca àtte nee na kooku itam jar naa ñee nee na ñaar ñooñu ñoo jara ñee ci àdduna ki nga xam ne yor na alal alal ji def na ko fu neex na fu neex suñu borom subhaanahu wa taala dimbaleel na ci nit ñi taxawoon na ci nit ñi la ca yàlla ji suñu borom génne na ko ci kooku nee nañ nee na jar naa ñee am na beneen xadis boo xam ne rotaat ne talabul ilmi mu siiw ñëpp mokkal ko xale yu ndaw yi sax mokkal faridatun ala kulli muslimin sàkku xam-xam farata la ci jullit bu nekk am na beneen xadis ba tey yonente bi alayhi salaatu salaam wax man salaka tariqan yalsamitu fi ilman sahala allahu lahu tariqan ila al janna yépp koo xam ne soobu nga ci aw yoon di sàkku xam-xam yàlla dana la yombal ajjana waxaat ne ba tey ne boroom xam-xam bi ñëpp dañ koy jéggalul yàlla ba ci jën yi ci biir géej dañ koy jéggalul yàlla kon loolu dafay wane rek solo gu xam-xam am solo Euh, cheikhul xadim radiallahu anhu moom daf cee soññee ndax mbiram mépp daf ko tabax ci xam-xam ni mu ko tabaxe ci xam-xam mooy euh, tariqal muridiya dafa tënku ci ay ponk ponk yooyu bokk na ci euh, xam-xam ndax tarbiya mu ne su koo def te anta xam-xam loolu tax ñu naan at tarbiyatu wa taalim waaye nag nit ki danga koy jàngal yar ko njàngum kese rek amul solo mooy li xew danga am say diplôme yu kawe waaye nag tarbiyewuñ la yaruñ la ndax say jikko dana baax jafe-jafe la man nga am doctorat man nga am licence ndax yar nañ la ay jafe-jafe am na kon jàngal nañ la nit ki jàngal nañ ko waaye ndax yar nañ ko loolu ab laaj la mooy jafe-jafe bu ñu am fi mu nekk nii bari na ñu jàngal waaye yaruñ leen kon tarbiya ak taalim ñooy ànd kenn mu leen tàqale nit ki dañ koy yar dañ koy jàngal yar ko waaye njàngum kese rek mënul sottal dara mooy suñu gàllankoor nit ki boo ko jàngalee ba noppi nag danga koy tarbiye mooy yar ko tarbiye boobu nag mooy defar ay jikkoom kon ñaar yooyu munta munta ñàkk mu soññee ci bayti bi may njëkk jot jële ko ci téeréem bi muy wax tasawur shubaan mu ne yaa maxsara shubaan in xiftumu xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen xale yi bu ngeen rag bu ngeen ragalee gàcc ëllëg na ngeen jiital xam-xam ci jëfe waxaat ci beneen bayti ba tey ne ci tasawur sixaar ya ayuha subyaanu la tastaxilu an ilhuda wa bil ulum istaxilu fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalis ashaqaawa yéen ndaw ñi bu leen soxla woo ludul ak jub ak jàng waxaat ci jawharu nafis ba tey ne wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman suma biamil naasika fal fal ilmu yuxyi qalba man taallama yunawiru nafsa kama yajlul ama bul bàyyi saa su nekk di sàkko xam-xam boo ko ba noppi nga jëfe ko daal waxaat ne waalam bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal nee na xam-xam ak jëfe ñooy ñaar yi nga xam ne mooy jox nit ki taxe fii ci àdduna jox texe ci àlaxira kon loolu ba tey soññe na ci waxaat ci beneen téere bu mu tuddee maxaaliq niiraan ma juma wala mafatixul jinaan wa maxaaliqu niiraan wa man nahakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami id kullu man fi sa zamaani manaa min altaallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin id in lam yakun bil ilmi shaabahu xalal fal ilmu wal amalu jawharaani li xayri ya daarayni yajlubaani nee na képp koo xam ne tere na leen jàng ak gëstu ak xam yàlla tereem googu ci cànkute la jëm te it woote na biddaa boo xam ne biddaa bu ñaaw la ndax jëf su àndut ak xam njuumte da cee gaaw a dugg daan na nag xam-xam ak jëf nee na ñooy ñaari mbir yi nga xam ne danañ jox texeek nit ki àdduna jox ko alaaxira loolu la ci sëriñ Touba soññee ci wàllu xam-xam mu waxaat ne ba tey fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ila al aza wa taabi nee na xam-xam bu ànd te ku teggin nit ki day nit ci àdduna sonn alaxira waaye du jariñu moo tax mu nag fa kasratul ilmi bari xam-xam boo xam ne ànd te ku teggin nee na loolu nit ki loraange lay andi fii ci àdduna tey dana sonn kon nit ki ami teggin duñ gis mukk ku ami tegg kuñ toroxal waaye boroom xam-xam bu ñàkki teggin mënees na koo toroxal kon ku ami teggin mën ngaa mucc waaye boo amee xam-xam ba noppi amub yar muccaguloo euh, ñu ñëw nag ci tomb bi nga xam ne mooy tomb bu mujj bi sëriñ Masamba ak xam-xam bu ñu tàmbalee rek ci tàmbali bi bagage yi mu doon saytu rek yi doon saytul sëriñ bi rek foofu ci nga xam ne kon kii am na xam-xam moom jërul jërul sori ndax xasaayid yi dafa am nu mu ko binde am nu mu ko waxee ku mën a xam waxiin wa ak nañ koy binde ak defaraat ba kooku boroom xam-xam nga kon bagage yu mag yi mu saytu muy bagage sëriñ bi loolu rek tegtal ci ne la boroom xam rek rek moo ko mën a saytu ndax lenn da ciy daje benn faw nit ki am ay maîtrise ci yi may wax doog ko mën a saytu benn gannaaw ba amee ndigalul suñ bo ndimbalul suñ borom mooy il faut nga peeg ulum lugal peeg ko lu jëm ci bayaan arud balaa yooyu yëpp nga peeg ko doo ko mën a saytu mbind bi te yooyu ay xam-xam ñaareel ba il faut nga peex lu ñuy wax mantiq usul nga xam ne moo lay xamal am ak mutlaq naasix mansuux yooyu ay xam-xam la yu xóot kon faw nga am ay jumtuwaay yu daje ci yow nga doog a mën a saytu mbindum sëriñ bi kon loolu rek bu ñu tàmbalee ñu xam ne ci tàmbali bi rek boroom xam la ci tàmbali bi rek du ñu sori boroom xam-xam la moo tax Seex Ibrahima Jibril Machari la wax faaxal afaadila ahlal juudi wal karami masamma mbàkke kathirul ilmi nit buñ ne am na xam-xam dañ naan ndax boroom xam-xam yaa ko wax kathirul ilmi ku bari woon xam-xam la wal xikami ku bari woon ay xikam la kon ñoom ñoo ko seere am na ko waxaat ne sëñ bi doon na ko tuddi léegi sinwul xadiimi wiaau ulumihi mook sëriñ bee bokk lépp waaye mooy mooy mooy ndabal sëriñ bi ci xam-xam shabihul mi'ta'u ku nuru woon sëriñ bi la ci lépp ba tey Cheikh Ibrahima Jibul Machar yi dem waxaat ci biir ba tey ne badrun muniirun jawaadun faiqun alamun qudwatu kulli muridin fahimi alam mooy ku ñëpp xam la royteef bépp murid fahimin ku degg xadimu rasul la fahim mooy ala wazni fail comme ni koy nuxaat yi waxe mooy ko xam ne dafa dégg xadimu rasul kon ku am xam-xam la loolu kenn weddi bu ko mooy li nga xam ne mooy li am ndax lu tax loolu mooy li mu saytul xaadimu rasul ci ab liggéey ci sëriñ bi dafa am nu mu doon bind noo xam ne ku peekul yenn xam yi wala ku tolluwul fenn fii ci xam doo ko mën a xam ndax mbind yi du caageen ne da daan bind rek bàyyi te it am na xasida yoo xam ne sëriñ Masamba moo ko wutal moo ko wutal tur ci yenn xasaayid yi sëriñ bi defu ci tur sëñ Masamba mooy xool xasida gi rek nga nii la war a tudd mu wutal ko tur fi ne xasida yu bari sëñ Tuubaa wutalu ko tur ma Masamba moo ko wutal tur ca nan la ko saytoo mooy day jàng xasida gi xam ne xasida gi nii la war a tudd jas bu la war a tudd wala mawaahib mu xool ne dana nañ bi naa bind mawaahib bu ñëwee jox sëriñ bi mu ne ko hakaza ma samba nii la kon loolu loolu nag li koy maye mooy da xam nit ki bëgg-bëggam fi mu toll te xam yàlla may la ak jagle ci ci loolu nga mën a xam kii lii la bëgg a bind wala xasida gi titre bii laa ko war a wutal kon loolu kon ak jagle goo xam ne diggante moom ak xaadimu rasul kon xasida yi bari na ci yoo xam ne moo ko wutal aw waaye amutoonu tur loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax kon loolu xam-xam ba tey moom lay jagle kon kooku mooy Euh, sëriñ sàmba euh, mu nekk nag ab soññ bu rëy bari na lum way waaye sëriñ Massamba ndax taalif na lu bari déedéet kon loolu li mu way ab liggéeya ngoog faw ñu dajale ko am nañu liggéey li mu way faw ñu dajale ko kon moom ay way la la bari le am na way yoo xam ne ñun gisuñu ko ay dénkaanay la la bari la loolu ay mbind la yu baree bari mi ngi fi kon loolu commission culturelle amaan na liggéey foofu kon ay mbindam faw rek mu dajaloo faw tim ñu xool ko jàng ko jàngat ko génne ci ay njëriñ yu baree bari ba bañ ñëwaat incha allah ñu dugg ci xikami sëriñ sàmm Mbacke ak euh, euh, leneen li ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf euh, sëñ yaakaar naa li nga laytaayal nit ba lañoo war a wax diggam ak diw ci xam-xam dañoo war a wax xam-xam mooy lan ba noppi ci yaakaar naa ne fi nga ci jaar li alquran waxal boppam li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ak li boroom xam-xam yi wax buñ ko àndee boole ko loolay tudd xam-xam waaye danga wax ne buñ ne diw ndax baax na dañ ne ndax ay bokk ma ko wax ñu ne ndax diw tabe na ñu ne baa ñàkk way ñàkk yaa ko wax ñu ne ndax niw nit am na xam-xam ñu ne baa boroom xam-xam yaa ko wax ñu ne diw jub na ñu ne ndax nit yàlla yaa ko wax sëñ Masamba bi nga ñëwee ci sëñ Ibrahima Diop almasar yu daa am ñaari baat yu mu wax yoo xam ne moom nga mujje te ñaari baat yooyu bu ci nekk di xam-xam mooy ne ku bari xam-xam la waaye ku bari woon ak warate ak kim la woon nituk nituk xikma beneen xam-xam la boo xam ne bokkut ak bi mu jàng ci téere yi loolu boot moo tax bone nee boo nee commission culturelle am nañ am nañ ab liggéey mooy waxuma ci wàllu xam-xamam waaye hakim bi lam daan wax ku ko dajale xam-xam war a génn ndax nit ñaa ngi def ay delluwaay ci waat baati wolof di andi ay kocc barma waaye baati wolof yi mu wax ndax xakim bii bu ñu dajalee ay waxam du doy sëkk ay téere ci li nga ne taalifut ay téere ndax bu ñu dajalee lam wax moom ba def ko ab téere andi ko du doy du doy jàng loolu mu wax moom du doy jàng ndax am na xam-xam waaye dégg na sëñ bi xam nga am xam-xam ak dégg xam-xam dëgg boo ko déggut Cheikh Ibrahima Fall kam doon mbokk ma ñëwoon ci moom na ko damay jàng xam-xam def ko ne tontu la day ñaaw day doon tontu lu ñaaw dangay jàng xam-xàmmee da jàng xam-xàmmi boo jàngee te xam xàmmee woo di nga jàng du am njariñ e, sëñ Masamba bi mu jàngee ci sëñ bi ba sëñ bi jàngal ko jàngal ko ba mu xam. dégg sëñ bi moo tax mu mën a jàng bayiti sëñ bi ba mu jeex mu ne daal xasida gii daal moo war a tudd jasbul xulóob bu déggutoon sëñ bi du ko mën a tuddi dégg sëñ bi mooy tax wala dégg njàngaleem sëñ bi moo tax bu noppee mu ne kii yàlla mooy mawaahibu fi loolu dégg nit ki ci la bokk déggam sëñ tubaa daana faral di wax bu sëñ tubaa di masaa di joxe ay dénkaan daa am ko mu ba mu yàgg mu wax ak moom bi mu daaneelee kooku ne sëñ bi de li nga wax sew na lool mu ne nañ wooyi ma sàmba ci tontu li bi ñu ma sàmba mu ñëw toog sëñ tubaa waxaat la mu waxoon mu ne ko loolu raw na xel sëñ bi ne hakaza lu sew day lu ñu mën a gis ak réer waaye lii ma wax daa raw xel kon loolu daa déggoon sëñ bi moo daan tax mu daan firil nit ñi bu sëñ tubaa masaa wax ba nag buñ génnee wëraat ko ñoom ñëpp nag naan ko sëñ bi lu mu jublu ci wax ji loolu dégg sëñ bi moo ko mayoon bala mën a dégg nit ki dëgg nag da ngay xam lam ba noppi nit ki lu mu xam te xamoo ko doo ko mën a dégg kon sëñ Massamba indi nga tomb bu am solo waaye boobu it sëñ Moussa na ci bàyyi xel ci li nga ko wax nag commission culturelle bi it am nañ ab liggéey bu yaatoo yaatu ci dajale waxi sëñ sëñ Massamba yi waaye waxuma la dara waaye li sëñ Touba daan tomb cam ko daan firil nit ñi it loolu na ab liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne ku ko dajale rek njariñ lu bari mën a génn kon dañu daal di ñëw ak euh, sëriñ Touba Ndaw moom mu ñëwal ñu ci ay taalifam waaw waaw maanaam ay taalifam li nga xamante ne bii waaye yaakaar naa ne yow lii lii sëñ bi sëñ mu doon junj rek dana ci am loo génne loo xamante ne bi ñu doy sëkk ci ñu xam commission culturelle bu ñu jógee fan lañ war a wuti ak ñañ lañ war a seeti ba lii sëñ bi daan wax daal ñu mën koo dajale kon sëñ Touba bisimilah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafi alxalq sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi yi ñoo ngi leen di nuyu di yéegal sunu nuyoo ak sunu siyaar ci ñi ñu fi jiitu woon di sunu ay mbokk di sunu kilifa di siyaar kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo fi tekk ñëpp di leen balu àq di leen baal àq di ñaan ci sun borom subhanahu wa yàlla yal nañu yàlla boole baal liggéey bi ñuy liggéey tamit yàlla na ko sunu borom nangul bu nu ko nangulee yàlla na ko jox boromam xanaa dañuy jéem rek ndax xaw naa bette ci li sëriñ Modou tàmbaliwoon woon euh, te muy xam-xam ak cheikh Massamba radiallahu an euh, ni mu ko waxee woon rek buñ ne diw boroom xam-xam la il faut que dana am lu firndeen ne moom mii kat boroom xam-xam la buñ ne diw boroom xam-xam la fokk ñu ne ci ban école la génne wala ci ban daara la génne ana kan moo ko jàngal wala ana lan la bind wala lan la taalif bañ mën ci sukkandiku xam ne kii kat boroom xam-xam la walla déet Cheikh Massamba radiyallahu anhu fi mu jaar te mbokk yi jaar fi rek dañuy sof rek di wéy ndax daanaka leer na jarul commentaire bokk na ci daara yi nga xam ne jaar na fi ki ci njëkk mooy sëriñ Cheikh Abdourahman Lo ci ndigalal ku baax kii di léppam muy xaadimu rasul foofu la jaar fa la jànge alquran ndikk moo mu waxe waaye jaar na ci itam ki nga xam ne kii magama di sëriñam waaye tamit doon kilifaam ci lu ne muy xaadimu rasul kooku jàngal na Cheikh Massamba radiyallahu anhu maam Cerno Ibrahim radiallahu anhu jàngal na Cheikh Massamba radiallahu anhu Sëriñ Mbàkke Buso jàngal na Cheikh Massamba radiallahu anhu kon ñooñu kenn ku ci nekk ku ñuy joxoñ la ci xam-xam ku ñuy joxoñ la ci ak njub ak jaamu yàlla ak xam-xam bu sell bu leer man koo joxit xam nañ koy joxe kon loolu teg tegtal la ci ne bu ñuy achama sàmba radiyallahu anhu boroom xam-xam la woon des na ko mën a nangu muy benn waaye am na beneen boo xam ne firnde la ci mooy boroom xam-xam la lan la bind achama sàmba radiyallahu anhu bind na lu xaw a takku benn mu nekk wesar maanaam kenn wéyu nasuñ ko mu nekk ay abiyaat wala mu nekk nazmu muy lu ñu woy benn mu mat ñu ngi ko tuddee xasiida wala mu manqué ko waaye ak lu mën a xew bind na lu bari kon loolu tegtal la ci nekkoon ci ñooñu la jaar bañ na boroom xam-xam la euh, Cheikh Massamba radiyallahu anhu bokk na ci li mu bind téere bu am solo boo xam ne Cheikh Moustapha mii ma jàkkaarloot fa tabarakallahu liggéey ci liggéey bu am solo génne ko bind ko ci loxol boppam ba ñu bari ñu ci jariñu fa tabaarakallaahu bi ci njëkk mooy mawaahibul xadiim kooku sama samara la moo ko taalif bind na beneen téere ñu koy wax Muhammadu Bamba Ahmadu Bamba Muhammadu Bamba xaadimu rasul bind na ci beneen wesar tudd ko ilaahiya bi xaqil qadim ilaahiya bi xaqil qadim xam nga sama samba dafa doon ko jeexoon takk ci sëriñ Tuuba ni suukar di see ci am ndox noonu la jeexee ci sëriñ Tuuba moo tax ba gëstu mbindam wala ay waxam lu mu wax ñaari jumla wala ñett rek dina wax ci xaadim rasul radiyallahu anhu gis nga bu njëkk bi mawaahibul xadim la ko tuddee may jëwriñu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy xaadimu rasul gis nga loolu benn bi Muhammadu Bamba Ahmadu Bamba Muhammadu man xaaba rasul gis nga loolu ba ca topp mooy ilaahiya bi xaqil xadim ni mu ci feeñe bu baax a baax a baax a baax ci taalif yi mi taalif bind na beneen bu ñuy waxee ilaahi inni xaamidun ilaahi inni xaamidun yow sama boroom man de maa ngi sant te sant far jullu bu nekk la in shakartum la azidannakum bind na ci baneen bu ñu wooxee ilaahi yallaahu ya rahman sama sama moo ko defar ak lenn lu bari ci ay mawaayis ak adaawaat yu baree bari yoo xam ne yii fa tabaarakallaahu uh, mbokk yi ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ne bu sotti dana baax incha rabbi ñu ñëw ci mawaahibul xadim mawaahibul xadim Cheikh Massamba radiyallahu anhu moo ko bind mu am ay tagg yoo xam ne daf caa tagg xaadim rasul radiyallahu anhu ak ay ñaan yum ko cay ñaanal moom moo ko tuddee moom ma Massamba mawaahibul xadim mooy may Serigne Touba radiyallahu anhu da wax ne sàmmaytuha mawaahibal xadimi fil madhi wa du'aa'i bi takrim man di maa ngi ko tudde may Sëriñ ci di ko tagg ak di ñaan sunu boroom mi nga xam ne mooy aji tëdd dëgg tëdd lépp teg wa asalullah al asim akrama fawsan bima rumtu wa ma aruma maa ngi ñaan sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam mooy aji màgg te lépp ak texe ci lépp loo ne maa ngi koy sàkku te xam ko ak lu ma xamut te mbaax ci man ma war waroon koo sàkku te xaw ma ko mawaahibul xadim boobu ay bayitam dem na ci téeméeri bayit ak ñeent mu cay tagg di ñaan borom bi subhanahu wa taala waaye di ci tagg xaadimu rasul booy def ay baxsu ci biir yu baree baree bare da ca fekk mu bari lool lu muy ñaan baatu xadiim bi nga xam ne moom la suñu ba gën a bëgg xablil xadiimi xablil xadiimi wàcc na ca lim bu baree baree bari dem na ci juróom ñaar fukki yoon ñaar fukki yoon yoo xam ne benn ab loxo ni ka xablil xadiimi lazi qad haasa xayru hudan maxtaara minka minal xayraati yàlla yàlla na nga may jawriñ jii di sama sëriñ di sama baay di sama mag muy xaadimu rasuul muy jëmm ji nga xam ne moo làq ngën ji njub na nga ko may lii nga ko tànnal yow yàlla xam nga Sëñ Tuubaa nee woon na bari na ku mooy ñaanal te yaakaar mi ngi may ñaanal fekk ñaanalu ma waaye ku may ñaanal nang ma ñaanal ma yàlla tànnal loolu sama sàmbara di la wax fii moo tax mu ne ko maaxtaara min ka minal xayraati yàlla baato baatu abla xadim boobu ñëwoon ci biir xasida boobu ñaar fukki yoon mu def ay tawasul yu baree baree bari ci ay ñaanam ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne bunt bi nga xam ne képp ku jëm ca yàlla te jaaru ci mu doo dem kon ñaan gii ma ñaan xaadim rasool maa ngi ko ñaan ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax bi jaay maqdumihi bari ca lool ba tey ca biir rot ca fukki yoon ci biir boobu boobule fukki yoon niki bi jaahi maqdumihi salal ilaahu lahu muhammadin sayidi saadaati yallaahu ci barkeb ka ñuy liggéeyal muy sayidina muhammad na alayhi salaatu wasalaam ñaan ñaan gi dal lu ci moom te it ne mooy muhammad ma nga xam ne mooy sangub sanga yëpp moo xam nit la mu muy jinne naka noonu boo demee ci téere boobu mooy xasida mawaahibul qadiim baatu kun lil yàlla na nga nekkal xaadimu rasul gis nga foofu baatu xalil la jëfandikoo su ko defee nag bi ñàkk bu ñëwee xel ñu naa kon man amaat na mu nekk kon mu nekk kon ah Ibrahima alayhi salaam wala kaneen waaye xalil boobu xaadimu rasul la ci namm waaw xarit bi nga xam ne mooy xaritu Seydina Muhammad kun lil xalil la wax yàlla na nga nekkal xarit bi. rat na ca biir xasida boobu ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar muy ñaan yàlla yàlla sotti ay xewal xaadimu rasul xool ni mu jeexe xaadimu rasul sema sam sema sam radi la woon ni ki kun lil qalili lasi hmm, lam yarda an ahadin ila lasi anhu yarda rabbu yàllaahu yàlla na nga nekkal xarit ba xarit ba nga xam ne du gërëm kudul ku yàlla gërëm du bëgg kudul ku yàlla bëgg na nga ko may lim bëgg tànn la ko ko te tànn la ko ko yow suñu borom subhaanahu wa mu mel ni bi nga xamee ne ñëw na ci kun lil xalil lu war a mat ñaar fukki yoon mu mel ne dafa xaw a lënt ci xeli gaa yi ñu naan kan mooy xalil kan mooy xalil mu teg ci ne anil mbakki yi ani al mbakki yi ki may bëgg a wax di ko di ko ishaara mooy mbàkke mbàkke ba mu andi ko nag yoon ci xasida bi juróom ni ki anil mbakki yàlla si haasal mawaahibu min maa tafdil yàlla li ma ne mu ci xalil mooy mbàkke ba nga xam ne làkk na ci suñu boroom ay may may yoo xam ne yu feeñ la ak yu nëbbu la ànd ak ay ngëneel naka noonu ci biir xasida ba kon andi na xalil andi na yi tamit al mbakki mooy mbakki mbakki ba waaye doyut nee na mu tekki na anib ni jaara kooku leer na kon anib ni jaara kii may wax boo ko xamul dëgg-dëgg mooy doomi soxna jaara buso rat na ci juróom-ñetti yoon ci xasida bi ni kii anib ni jaara lasi xassal ilaahu lahu bi sabqi wa zuudi wala irfaani yàllaahu kii may wax te leen ko mooy joomi soxna jaara ja nga xam ne suñu borom jaglal na ko ay may te muy jiitu gu mu jiitu nit yàlla yi waaye oyofal gu mu xoyal àdduna ak xam-xam bu yàlla dénk muy xam-xam boo xam nekkul ci ay téere Cheikh Massamba radiyallahu anhu tudd na Sëriñ Tuubaa ci turum gën a bëgg ci biir xasida bi mooy abdullahi wa xadimi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ci biir xasida boobu lu mat fukki yoon ak juróom ni ka abdul ilahi lasi hmm, ma zala moo ko tafiyan billahi mutasiyan mu ne kooku moo jaamu yàlla bi nga xam ne musul dañ doyloo yàlla musul deñ di jàpp ci sunna Seydina Muhammad ne alayhi salaatu wa waaye taqoo ak farata ji nga xam ne sunu borom moom la ko gàll ci aw loosam ku muy xaadimu rasul Seex Masamba radiyallahu mottali nag téere ba ci julli gu mu ci julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax yonent nee woon na kenaay dëgg dëgg dëgg mooy du mooy ku denc ci alal ci poosam lànk bañ koo joxe waaye ki nay tigi mooy kiñ ma tudd fi moom. te waxoo sallallahu alayhi wa moo tax mu ne wa salli da ban salaatan lantiha alaha ala nabi muntaxal xayraati yàllaahu yàlla nga dolli ay xéewal ak mucc goo xam ne amul fu mu yem ci yonent bi nga xam ne fi moom la mbaax yem radiyallahu anhu mu sàkku nag ci sun boroom subhanahu wa taala boroom baax képp koo xam ne kii jàng nga xasiida boobu wala nga gis ko wala nga bind ko wala nga teg ci sa bët nga defal ko ak texe àdduna ak texe àll ci barka Seydina Muhammad na alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy lenn ci mbind mi nga xam ne Cheikh Massamba bind na ko muy bi ci njëkk muy Mawahib al-Khadim kon su ko defee rek ñu. fekk ñu gàttal li ci gàttal ba ñu wax incha allah bi ñu ñëw ci ci des. yaakaar naa ndaw kondaa bi tey mbàkke mbàkke yi duñ ko wax dara nag li mu indi ci waxi sëriñ ma sàmba yi waaye day day day day gën a dëgëralaat waxi sëñ Modou jim wax ne sëñ Ibrahima Diop moo ko waxoon ci sëñ ma sàmba wax na daal. ku bari xam-xam la waaye ku dégg sëñ Tuubaa la xam nga ni muy tudde sëñtubaa fii kii may bëgg a wax ak yéen bu ngeen ko xamut mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu ki may wax yéen bu ngeen ko xamut mooy doomi soxna jaara ja kii may wax ak yéen bu ngeen ko xamut mooy mbàkke mbàkke ba mel nangam ak nangam bu delluwaatee ci waxi Cheikhul Khadim bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am foo xam ne da koo tiim rek nga xam ne bokk na ci mbégte mu yonent bi am ba bu mënoon a xàqtaay day xàqtaay ba mu ko tiimee naan ko saaka xiyaarul arabi zaaka munilul arabi saaka zabilu talabi tabibu ahli saqami mbooleem xeeti taraanga yi mu di ko ko jox ba muy wax naan labista ziyabal majdi wal fadli wal hula wa fiika min al axlaaqi ma ahjazal kulla xam nga nit ki danga ko way te du ko dugg waaye da nga ko way eh, lim yoroon lépp mu jox la ko loolu nag ki ko xam dëgg ki ko man dëgg mooy sa géwélu juddu wala sa géwélu cosaan sëñ Tuubaa dañ naan mooy géwélu juddu yonent bi wala mooy géwélu cosaanam waaye sëñ Masamba fii mënees na koo jàppe muy géwélu juddu sëñ Tuubaa wala géwélu cosaanam ndax xam gu mu xam sëñ Tuubaa ak ni muy waxee moom eh, turi xasidaam yi nga xam ne moom la tuddee sëñ bi loolu ay li muy tegtale mooy ak jeexam ci sëñ tubaa ak jeexam ci sëñ tubaa xam nga yéen a ngi waxtaane sëñ Masamba ak xam-xam sëñ Masamba ak lu ne waaye am na baat bu mat a waxtaane lool te jafe na nag mooy ma sëñ ma sàmba ak woyof aw xob sëñ Masamba ko gën a woyof ci kaw te gën a diis bato ci biir xam nga fi ne li gën a naqaree ci sëñ ma Masamba mooy xoolal ni mu ànde woon ak ay doome baayam ba noppi jàppe leen baay laxasaayam gi moo taxoon naar bi daan wax sëñ Tuubaa naan ko ndax kii nga àndal day sab jaam mu ne ko déedéet ñoo bokk sëñ Mbàkke Mor Anta Sali te maa ngi bokk luñ bëgg yàlla rek lañuy wut damay magam tam gëmma rek waaye loolu la maam Thierno seere woon ci moom daana takk laxasaayam gi fii ànd ak mbooloom mi dem daarul mooti yor ak baleem ak i radoom bale dëkk ba ba mu set bi bi mu gis maam na wala du ko gis mu ñu bisiwaat loolu kuy jàng roy woyof jëlal sa bala rek dem buub sa buntu kër mag buub rek ba set nga bañ a wut dara beneen bi ci topp mooy bi ñuy liggéey jumaa yi Tuubaa xam nga ñu baree ngi tooñ sëñ Masamba naan lekk lekkati ma Masamba yi waaye ñooñu ñooy yoonu murit boo ko gëstoo dëgg lekkati sëñ Masamba yi mooy taalibe sëñ Tuubaa yi mooy yoonu murit bi ñuy tabax jumaa ji moo soxna Fatja. soxna fat ja daa defoon waañam daaru salaam ma sàmba def fii waañam sëñ Masamba li muy togg booba bool bareegut amut bool bu ñu koy yekk te mbooloo miy ñëw ci jumaa ji kenn xamut nu muy toll sëñ sàmba tabax ay baaj yoo xamee du am pax dañuy perong rek perong yu yaatoo yaatu mu wër jumaa ji su mbana gi noppee ñu yekk ko ci kaw perong yi fu waay taxaw tim di lekk perong bi day mat 6 mètres wala 8 mètres wet gu ne koy mën a taxawee loolu moo waraloon bu yàq bu yàq jotee ñaan lekkkati sëñ Masamba yi léegi nga séenati leen waaye loolu it yaakaar naa ne ca jamono jooja sëñ ma Masamba di def loolu booba ceeb nee ne xon xonoor lañ ko tuddee muy yëfi xorondoom lu génne ci xorono waaye yombatu taam loolu bokk na ci ak tabam ak kon buñ tolloo ci jamono joo xam ne yooyu yaar moo ci gën a jafe tebe ci ñi ñàkk ak woyof ci ñi am daraja fii tollu jamono toll ñi tabe ñëpp ci ñi am alal lañ tabe waaye tabeetuñ ci ku ñàkk dolli ab jal lañ gën a man ci sos sëñ ma sàmba nag da daan wuti dëkk boo xam ne xiif ba dafa bari ñàkk ga bari fa mu duy poosam ba mu fees boo ko nee foo jëm mu ne ci àll bi ñu ne ko lu tax mu ne njaboot gi ne ci réew mi njabootuk sëñ bàmba lañ te bu ñu xiifee maa lañ war a dundal àll ba lay wuti moom balaa am la ko gënal dem fa kenn yorewut dara mu wër leen di leen dundal kër gu sëñ Masamba masa amit wala dëkk bu mu dem duñ ne sëñ Masamba ca néeba lañ ko dalal ca jàkka ja lay dali ne ca pénc ma wet gu ne nit da ko fa jógee beneen bi ci topp ci wàllu woyofam kero ba mu jàkkaarloog doomam ja mu jàppee ko sëriñ moom muy sëñ Mudu mustafaa moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba muy jaayanteeg moom da ko wax ne sa dund gi nag bu ne yàlla demee ba nar koo jël na ma yóbbu man ma sàmba te yow mu bàyyi la fi ndax liggéeyu sëñ Tuubaa bi mën na maa faf sama dund dugal ko ci nga àggaleel ko ko yow jaay sa bakkan sëñ tubaa nag ngir ab liggéey àgg te nga jaay ko koo xam ne sa mag a ko jur ñaareelam amagut moom sëñ ma sàmba mu mel ne kon jataay bi nuroo na lool ak boroom muy sëriñ Masamba mi ñu koy defal beneen bi ci topp mooy jeex gi ci sëñ mooy ñi dëkkoon bokk na ci sëñ njëkk yabal na ko demal ma tubaa moom sëñ Masamba bi sëñ tubaa di joxe ndigal ci jumaa ji bokk na ci ñi sëñ tubaa woon ba sëñ tubaa di wax na lii moo yor ku jaayanti wut bokkoo ci it bokk na ci ñi sëñ tubaa woon waaye yooyu jataay mu am kook sëñ tubaa yëpp moo ko xir mu def na sëñ fàllu defoon moo sëñ fàllu daal buñ leen tuddee ay penku penku mën a ñoo raw raw sowu sowu yi ci am xel bañ xamee ne sëñ bi daal yii moo ko moom dañoo fexe ba ne doxu ci biir sëñ bi moom bañ te nekk ñoom moo tax ku tuddati sëñ tubaa tudd leen sëñ Masamba bu doon wutub karce dana sori jumaa ji waaye bam mu ne tubaa nag du ma wut dara damay dugg ci sa biir la ko sëñ tubaa sësale ci jumaa ji rek ma sàmba amutub quartier ci tubaa waaye nag buñ nee tubaa moské ma sàmba dugg ca biir bala ngaa àgg ci sëñ Bamba it jaar ci sëñ Masamba loolu la ko ko may mooy bañ a tànnal boppam bàyyi sëñ tubaa mu di ko tànnal waaye nag ko doon tànnal sa bopp moom fii sëñ Masamba dëkk ngay tànn waaye ñàkk yim ñàkk a tànnal boppam bàyyee boppam sëñ tubaa mu tànnal ko moo tax sëñ tubaa ko la gën tànnuk sëñ tubaa waxtu ne mooy gën moo tax ñoo ngi sant bu baax a baax ci waxtaan yi fii ñëw te lépp di lu am solo te damay faral di wax ne may sëñ tubaa yi buñ ko xatal ndax sëñ tubaa mooy mooy moo yor may yàlla yi te yàlla mu mayoon yonent yàlla Isa mooy yonent yàlla Muusa mooy may may yonent yàlla Nuux yàlla moo mee moo may Cheikh Ibrahima Fall may sëñ Masamba jenn yàlla ji jenn du changé kon pas-pasum nit ki rek moo mata a daas waaye may yi moom buñ ko yamale fenn li sëñ Tuubaa yor di ko séddale it damay faral di wax ne bu ñu dee waxtaanee sëñ Masamba Galas si le di ko dégg naan a ah, maam seexanta lam la def nag moom xamut sëñ tubaa xamut sëñ Masamba xamut maam Cheikh Anta ndax maam Cheikh ma muy waxtaanee ci ay darajaam mi ngi ko jëlee ci sëñ Tuubaa sëñ mi muy waxtaanee ay darajaam mi ngi ko jëlee ci sëñ kon koo ci wàññi darajaam rek darajee sëñ Tuubaa nga bëgg wàññi te sëñ Tuubaa lim ni yor du jeex. buñ ne ma Masamba la sëñ Tuubaa wax ne bu ëllëgee yaay ramu ñëpp dañoo war a gëm ne kuy dem àjjana ci loxoy sëñ Masamba ngay jaar ñi ci des dem noppalu ji sëñ Ablaat waxoon na ne bu ëllëgee ba nit ak jinne malaayika teew ba yàlla di peese jëf yi nee na yonent bi day wax lan bi yaaw yi ak mursal na leen yéen dem leen toog bisub tey bi taxul ngeen di ñëw yéen alxuraan nettali na ma seen mbir daal di wax saxaaba yi it na leen yéen maag yéen a àndoon seen lépp fekke naa ko yéen ñin tudde ay borom jamono sama ginnaaw yéen a tax ñuy wax jóg leen ñu natt seen i àndaar sa yablaat nee na ku féete sëñ tubaa fenn keroog lay doon sëñ tubaa nee na buñ tuddee sama tur daal damaa bëgg taalibe yi ma waroon ñi mel ne sëñ Masamba ku nekk jóg na ma toogal yow mën a koo jóg bàyyil rek ñun ñu ràmmul la xeet wi su ko dee ñooñee ñooy jóg ba mu yàgg nit ñi taxaw maase ne waaw kii nga xam ne bañ tuddee aw turam ak léegi moom kenn gisagut jëmmam te taalibeem yi bëgg a jeexal li ne mooy kan sëñ Masamba ne leen boobee mooy kii ma leen doon bëgg wax nag muy Ahmadou Bamba moom moomee nag sëñ ma Massamba daa bokk ci ña nga xam ne bëtam foofee la ko tegoon bëgg bu ëllëg nit ak jinne malaayka buñ teewee buñ tuddee turu sëñ Tuubaa yi mu man koo ràmmul ñëpp moo taxoon sëñ ma Massamba dëddu àdduna ak li ci nekkam lépp lu mu masa amit mu jox ko yàlla kon ñoo ngi jaajëfal di xam ne na jataay bi sëriñ Fallou sëriñ Alaaji Fallou Mbàkke moom sëñ Mahmoudan moo ko jiite ci ndigalul sëriñ Cheikh sëñ Cheikh def ko ci ndigalul sëñ Moustapha sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdoul Baaxi ak sëriñ Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëñ Massamba sëriñ Uwaysu Mbàkke moom sëñ Moustapha moom sëñ Masamba sëriñ Modou May moom sëñ Abdou Salaam sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar moom sëriñ Moustapha Masamba sëriñ Abdoul Baaxi moom sëriñ Mamor moom sëñ Mas moom sëñ Masamba sëriñ Cheikhouna Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëñ Masamba sëriñ Aliyu Mbàkke moom sëriñ Modou Fati Xari Mbàkke sëriñ Mourtada Mbàkke moom sëriñ Abdoul Baaxi sëriñ Maam Masamba Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba sëriñ Basiiru Lo moom soxna Aysatu sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba ak sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba sëriñ Seex Kaala Mbàkke moom sëriñ Fàllu moom sëriñ Mahmoudan sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abdoulahad Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Aydara Mbàkke moom sëriñ Ahmadou moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba ak sëriñ Abdoul Baaxi moom sëriñ Jiili moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Masamba kon ñooñu ñoo teewe jataay bi xam naa ki ni bëgg a jox kàddu gi mooy sëriñ Mourtala mi nga xam ne moo ñuy jàngatal wax yi fi jot a jaar am lenn ci wax yi bokk mel na nag am na baat bu sëñ Modou Fati Xari waxoon mat daa bàyyi xel sëñ Modou Fati Xari dañoo wax ne dañoo jàngale ñaari tombam yoo xam ne yu ma intéressé la ci moom mooy benn bi dafa nekk ci fii ci wetu Touba am benn taalibe bu mu toogal sëriñ Abdou Lahad ñëw fa am lu mu wax ak sëñ Modou Fati Xari waaye bi mu ko séenee muy wàcc sëñ Modou Fati Xari daa wàcc ci piliyaan bi toog ci suuf bi taalibe bi toogee jàkkaarloog sëñ Modou Fati Xari xam naa bëggutoon mu wàcc sëriñ Abdou Lahad wax ak moom ba noppi sëñ Modou Fati Xari fappi ko ba def ca lam ca war a def boole koog sëñ Abdou mu yóbbu ko ba mu demee mu ne ko ah Mbàkke yaa baax waaye lii nga def de man jaaxal na ma wax dëgg yàlla mu ah, ma def sëñ Abdou waaw yow de da ngaa xamut baatin kon bay boo ñu wax ak yow saayir naa mu ne ko kii ma wàccel piliyaan bi toog ci suuf de saa bàyyi jébul woon ci baayam benn bi ci njëkk beneen bi ci toppit kenn dox diggantee mag mu doon sëñ Tuubaa bi ko ñetteel nag ñun askan wi ñu bokk mooy askanu Mbàkke Mbàkke ku mag yilif la te moom a mag kooku moom benn baat waxaatu ko beneen bi ci topp mooy taalibe yi ànd ak yow nga suturaal leen te yàlla tax def na ci exemple boo xam ne moom it bu mat a bàyyi xel la te ko loolu tegte la ne sëñ Masamba ak njabootam noonu lañ mel mooy benn waay boo xam ne dañ koo jox tool àllarba yi ak daayira yi biñ ko dajalee lépp mu lekk ko ba waxtu siyaare ji jot mu jiitu si leen ci sëñ ma sëñ Modou Faty Khary na leen na ko kat mbàkke àdduna jii ma yaakaar ak àllaaxira daw gàcce rek a tax ma jébbalu ci yow mu ne ah mu ne ko gàcce ak àdduna nag dëgmal na ma xaw ma nag nooy def. sëñ Modou Faty Khary na ko gàcce ak àdduna gi gumu mu ne ko yaa ma doyloo woon teg ma ci dëkk ba mu ne ko waaw mu ne ko tool àllarba ya ak daayire ya man lañ ko jox te lekk naa ko te nag altine jii di ñëw lañ war a siyaare si te nee naa leen xaalis baa ngi fii te maa ngi ñoom a war a ànd sëñ Modou Faty Khary laaj kon na xaalis ba toll mu wax ko ko mu yëkkati ko teg ko ci loxoom na ko dellul booy ñëw nga ànd ak ñoom mu dellu jël xaalis ba. bi muy ñëw mu ànd ak waa daayira bi ñu ne ko indi xaalis bi ñu wàññi ko ci dëkk bi soo ko dem ndax booba ñaaw ci ne lekk na ko mu génn xaalis ba ñu wàññi ko ba mu mat ñu bari na ko sëñ bi da nag ñu baal àq ndax lañ foogoon ak li am bokkuñu bi ñu agsee ci sëñ Modou Fati Xari mu jëbbal ko xaalis bi bi ñu noppee sëñ Modou Fati Xari na leen fobaat xaalis ba teg ci loxoom na ko boo demee nag nga defal ma ko ca yitte ya wax waa dëkk ba yit na leen kii daal maa ngi leen di xamal ne lu ngeen teg ci loxoom rek moom lu ngeen teg ci sama loxo laa boole naa leen kooku mën naa jàngate ci sëñ Masamba nan la ñuy yore mbooloo ku xam àdduna la loolu nag loo am solo la loo xam ne lu mat di bàyyi xel la kon sëriñ Mourtala ginnaaw dañoo wax ne yaay jàngat lenn ci wax yi kon bisimilah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa man ittabaa millatahum bi ixsaanin ila yowmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki fi teew ak ñi jàkkaarloo ñun ak ñi ñuy topp ci mbooleem siiwalukaay yi yi ñuy gis ak yi ñuy dégg leen nuyu leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am li taifatil muridiya di sëriñ Cheikh Sidi Moxtaar Mbàkke di ñaan suñ borom yàggal ko fi te àggale yéenim di ci tegit suñu xalifa sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Masamba di ñaan suñu borom àggale seen yéene ak mbooleem xalifa yi nga xam ne ñoo jiite kër sëriñ sàmba yi ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk euh, suñ borom tànn gim la tànn ba teg la ci bopp kër googee euh, yaakaar bañ a tas ci yow te yéene yi àgg ci yow tam yéene yi bàyyi ak maam yi àgg ci yow te suñ borom saxal fi li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa jëmbatoon te mooy ak toppante ku mag ñu topp la te ngay yërëme yàlla na ko fi suñ boroom saxal di ñaan mboole mbooloo mépp tam ñu yeesalaatal ñu ay ñaan jëmale ko ci sunu ñuy way dawlu yi tàmbulee ko ci maam yi ba ci ñu mujj ñi ñi mujj am di suñu waajur ak Abdul Baax ak sëriñ Alxaaj Mbàkke ak ñu mel ne ñoom ñëpp suñ boroom doo leen yërmane ak ngërëm euh, sedd mi njëkk a def mi ngi jëm ci li sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ maam Mor Mbàkke wax ci wàllu askanu sëriñ Masamba ñuy wax ne mel dafa mel ni waxtaane askanu sëriñ ma sàmba ci wàllu baayam wala ak ndeyam am na ñoo xam ne mën nañ koo firee ak ndamonte ak ndam ak di damoo say maam mën nañ ne dañuy damoo seeni maam comme ni ko sëriñ bi di waxee ci nahju qadaa'il haaj fa in atayta bi faxrin min zawi xasabin yufaaxiruna bihi fa tiinu wal sëriñ Masamba euh, ay maamam ay maamaatam ñëpp ñu baax lañ buñ ko dee tudd fii mën nañ ne loolu ñoom ay euh, suuf maanaam dellu dellu lañ ci suuf daal du luñ mën a ndamoo waaye ci dëgg-dëgg liñ mën a wax mooy bu ñuy waxtaanee ku baax nuñ mën a def mm, ci aw askanam lañuy njëkk a tàmbalee mënut a ñàkk waaye nag li ñuy waxtaanee dëgg-dëgg du askanam donc li ñuy waxtaanee mooy xam-xamam ak jëfe gi jëfe woon xam-xamam. ni ko sëriñ Tuuba waxee ci nax ju ne mal faxru illaa li ahlil ilmi innahum ala alhuda li man istahda adillaahu kon bu ñuy ndamoo sëriñ Masamba xam-xamam ak jëfam la ñuy ndamoo te moom la ñuy waxtaane tam ndax dunduk sëriñ ma Masamba dafa fees dell ci ay njàmbaarte yoo xam ne mi ngi jëm ci wàllu xam-xam ak jëfe xam-xam mooy euh, lim xam-xam ak tegginu euh, moo tax ci fii la lañuy mën a waxee ne bu ñuy waxtaan ma sàmba day dugg ci cadre li suñ borom wax ci alquran ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusul ma nuthabitu bihi fuaadaka wa jaaka fi haasi lxaq ba aaya ba jeex sëriñ euh, suñu borom wax yonent bi ne ko saa sune dañ lay net li ci xibaar yonent yi loo xam ne dañ ciy gën a saxale sa fas-fas gën cee dalaleel sa xel gën cee saxale sab xol ngir doo wéet ci li nga nekk ne ko nag net li yii la ñu ñu lay net li kët da nga ci xame dëgg te da des na ñi gëm yàlla tam dinañ ci mën a waaroo te dinañ ci mën a fàttalikoo yàlla kon ne waxtaanee sëriñ Masamba euh, ci ci wàllu googu la dugg maanaam dañ ciy gën a dolli ko pas-pas suñu xol gën cee saxe te itam ñu dañuy gën a wétliku xam ne ñun dong wéetuñ ci yoon wi ñu nekk te dinañ ci mën a fàttalikoo gën ci mën cee waaroo tam kon waxtaan gi ñuy waxtaan sëriñ sàmba dafa mel ni waxtaane yonente bi sallallahu alayhi wa dafa mel ni waxtaane xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di Cheikh Ahmad Bamba al abdul xadim waxtaan la woo xam ne dañ ciy jariñu waaye du loo xam ne dañ koy def ngir ndamonte waxtaan la woo xam ne dañ ci koo di ci euh, gën a tegtaloo ci yoon yi nga xam ne ci lañuy mën a jaar ba àgg fañ jëm loolu lu ab seet la buñ am ci waxtaanu sëriñ Abdul Qadir moom sëriñ Mamor sëriñ fàllu Galas tam am na ab seetlu bu am ci waxtaanam bi muy waxe ne euh, sëriñ Touba radiyallahu anhu ginnaaw bu fi waajuram jóge sëriñ ma sàmba la njëkk a tudd la njëkk a tudd defe naa noonu la ko waxe euh, loolu mel na ni tam ak jagleel la tam ngoo xam ne suñ borom jagleel na ko ndax xam nga ne tudd nga nga gane àdduna ki lay tudd loolu lu baree bari dina ko def ci yow ak di ko dindi ci yow tam yow mi ñuy tudd kon bu fi sëriñ um, waajuru sëriñ Tuubaa jógee sëriñ Masamba njëkk a gane àdduna suñ borom baaxe sëriñ Masamba sëriñ sëriñ Tuubaa njëkk koo tudd loolu ay tegtal yu bare bare yay jox lay joxle lay joxe ci wàllu jagleel yi nga xam ne suñ boroom jagleel na ko ko euh, kaamilam boobu nga xam ne tam da koo bindoon Sëriñ Tuubaa yóbbaale ko ci géej gi loolu tam muy ganeen jagleel la tam ndax Sëriñ Tuubaa alxuraan rek la defoon muy léppam euh, comme du du kaamil yëpp tam la la la ñoo am jagleelu moo mën leen yóbbu ca géej ga fa ba kon bu ko suñ borom jagleelee ab kaamilam dem cam ànd cee dem mu di cee def lam cee def loolu tam geneen jagleel la goo xam ne eh, gu suñ gu ko suñ borom jagleel la muy ñaari jagleel tam yoo xam ne su leen xeeb eh, sëriñ jaw tam danañ seetlu ci waxtaanam ne sëriñ Masamba kat ndekete ku réyoon daraja la ku rëy daraja la kuy rëy daraja la yowmal xiyaam kuy rëy daraja la yowmal xiyaam euh, li ñu koy tegtal mooy xir xir gi mu xiraloon xiroon ci liggéeyal ak xidma xidma xam nga xidma euh, dafa rëy danañ ñëw ci liy leeral ne dafa rëy moo xam xidma xidmatul xawaas wala xidmatul awaam mooy liggéeyal nit yàlla yi ak ni liggéeyal nit nit nit nit yi ordinaire yi rek sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci Masaalikul Jinaan mi ngi koy junj ne bu ñu demee ba eh, ne maanaam ahlul xidma bu yowmal xiyaamee dañ leen di digal rek neen gaaw dugg aljana kañ lañ leen koy digal mooy bu ñu demee ba tartar yi metti ñuy xaar suñ borom ñu àtte jaam yi dañ naan ana ana ñu daan liggéeyal jaam yi rek ñu ne ñu ngi ni ñu ne leen acca gaaw dem aljana loolu junj na ko ca Masaalikul Jinaan kon eh, te sëriñ Massamba gis nga ne bokk na ci lim daan liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne muy loo xam ne ñaar duñ ko werante muy liggéey bi mu ko doon liggéeyal ci wàllu xam-xam e, ci xaside yi te ñëpp xam ko e, e, ak li nga xam ne xamoon nañ ko ci moom ci jeex gi mu jeexoon ci liggéeyal ko ak toroxlu ci kanamam ak wàcc ci kanamam ba sax am benn naar bu ko daan jaawale ñëwoon di ko jaawale ak jaamu sëriñ Touba ngir woyof gu woyofoon ci kanamam ak nangul gi ko nanguloon ak jeex gu jeexoon ci moom te loolu lépp ci xeet liggéeyal la bokk kon loolu day tegtale na kon moom kuy rëy ku rëy daraja la yowmal xiyaam ku am ak xeej ji la yowmal xiyaam bokk na ci lii wane ne ku daan liggéey la tam ku daan def xidma la te texe gum texe woon tabe gum tabe woon ci nit ñëpp tabe gum tabe woon ci ñëpp ba sax dafa ci yenn tolluwaay mu jëloon maanaam des ci ñu di ko topp abord loolu moo moo ko maanaam euh, teral nit ñi jox leen ñu am teraanga moo ko gënaloon moom la jëloon euh, moo ko gënaloon maanaam moom la tànnoon ci ñu di ko topp abord maanaam nga xam dafa tànnoon ñu di ko topp abord tam teral nit ñi nga dafa defal li ñuy wax isaar wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa maanaam euh, mënoon naa fay bor ba rek daal di daal di daal di daal génn génn ci mbàll gi <laughs> waaye wa yusiruun ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ne eh, day ta jël lañ ko war a fayee bor bi gaa yi gestu gis gaa yi daa ne daal duma leen eh, seetaan seen yaakaar di tas daal leen di jox teraanga jooje daal di des ca bor xam nga loolu lu rëy rëy la loo xam ne eh, ci jikko yonent yi ak jikko yu yi baax ji la bokk sëñ Modou Abdou Salaam bokk na ci li ñuy seetlu ci ay waxam uh, am na bayt bu mu andi mu ne al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yahdimu baytal insi wal ñu gis ne bayt wi kat day soññee jëme ci ñu gën a sonnaat ci man ñu ñi nga xam ñooy ahlul bayt al mooy ahlu bayt Seex Masàmb am na ñooy ñooy ñu bokk ci kër gu tedd gi Eh, suñ borom teral nañu may nañu teraanga ba noppi eh, dañuy bayit bi dañuy gis ne kon dañuy dañoo war a gën a nag sonn ci jëm ci wàllu xam-xam ittewoo xam-xam ak jëfe ko nag waaw eh, ndax xam nga ne ñun waa Kër Sëñ Masamba sunu tedd ci xam-xam moom ak jëfe xam loolu ñëpp xam nañ ko ndax bañ tuddee suñ suñ maam Masamba rek ak ay jaar-jaaram la suñ la suñ tedd nga saxoon. Euh, euh, rawatina nag buñ buñ buñ jàllee ba ca ginnaaw ba ca maamaat yooyu yëpp kon ay maam lañ yoo xam ne seen ahlul euh, maanaam ahlul izza lañ buyuutun mm, aziza lañ ay kër yu tedd lañ bu ko defee kon li mu wax ne wal wal jahlu yahdimu baytal izzi wal karam loolu ñu war koo dawal suñ bopp mooy ak ñu moytu kon ndax buñ buñ ko moytuwut kët mën naa dem ba tur yi doo nga fii ne waaye teraanga dootu fi nekk bu ko defee loolu ñu war cee góorgóorlu bu baax rawatina ci suñ jamono ji nga xam ne ku am bët di xool wala nga am nopp di déglu wala nga am euh, xel di xalaat danga gis ne euh, jamono ju laa jàng la jamono ju laaj jëfe sam njàng la itam euh, day wane ne tam jamono la joo xam ne ku jàng rek te jëfe da dem ca kanam ak ca kaw kon ñu war a góorgóorlu ci wàllu googu bu baax a baax ngir tam suñ ajiyaal yi ñëw muy maas yi di ñëw ëllëg tam war nañoo ñun war nañoo góorgóorlu ahlul ñun ñi nga xam ñooy buyut ahlul buyutul al buyutul aziza muy buñ ko tàmbalee ci maharam ba fii ba waag suñ ma sàmba ak ñi cosaanoo ci euh, maharam ñëpp xam nga ay buyut aziza lañ waaye war nañoo góorgóorlu ñoom góor yow yëpp ba ajiyaal xaadima yi ñëw mooy maas yi ñëw ëllëg buñ ñëwee fekk fi ay keno yoo xam ne keno yoo xam-xam lañ ak kenooy jëfe lañ niñ niñ ñëwee ñun fekk ko fi war nañoo góorgóor nag ba suñuy sët buñ ñëwee tam fekk ko fi fekk fi fekk fi euh, xam-xam buñ buñ buñ buñ fi bàyyi ak ak jëfe goo xam ne buñ xoolee seeni bët jëf teg ko ci nit nga xam ne ñun dañuy xool di di gis ci suñ bët li suñ sàmba bàyyi hmm, di ko di ko di ko di di di ci wàllu xam-xam ak jëfe ni ko noonu ñun ñii di ay sët ak i sëtaatam am nañ aw sas bu baax a baax ci góor góorgóorlu nag ba suñuy sëtaat buñ ñëwaatee fekk fi lu wóor a ci wàllu googu te te moytu nag li ñuy wax mujj pusa bi mu réer loolu euh, danañ ko jàng ci waxi sëriñ Moodu moom sëriñ Abdou Salaam hmm. ba tey tam euh, ba tey euh, danañ jàng ci waxi waaw bokk na ci tam li nga xam ne danañ ko jàng ci waxi sëriñ Moodu moom sëriñ Abdou Salaam euh, euh, ne sëriñ tum sëriñ Masamba lim daan def suñ borom jagleeloon ko ko ci wàllu xasiide sëriñ bi muy wàllu bind ko ak maas ko loolu day tekki ne moom ku peegoon mbooleem xeeti xam-xam yi Euh, da koy tegtale te loolu euh, lu neex xam la ndax sëriñ Modou junj na ko sax leeral na ko sax laay wax ndax sëriñ Touba waxoon naa ko ci waxtaan wala wees xam ma daaw xam ma daaw jëkk ku toll ne sëriñ Touba bu bindee teg ñëw nga ñëw daal di maas wala nga daal di bindaat lam bindoon wala nga wutal ko aw ak ni ko suñ borom jagle la ci wàll yëpp ak fi mu àggoon ah, dama defe ne ku ku ku man loolu kat boole nga ñaar yëf mooy boo xamul la ko bindoon xam tam Ah, am na jagleel yum la jagleel yoo xam ne tax na nga man lool ba tax na loolu uh, jagleelu sëriñ Masamba la te loolu mooy li nga xam ne moom la ko ñim jamonoon teeloon seereel ku mel ne sëriñ Ibrahima Diop al-Mash'ari fi muy waxe ne faaqal afaadila ahlul judi wal uh, karami Masamba Mbacké kasirul wal xikami sëriñ Fallou uh, Silla doon na ko junju fi mu waxe ne kasirul ilmi wal xikami xam nga faaqal afaadila baat la bu am solo mooy ñi ñi gën ñëpp moom féete na leen kaw ñi nga xam ne dañ naan dañoo tabe te dañoo baax ñoom ñëpp féete na leen kaw lu mu leen féetee kaw mooy dafa bari woon xam-xam bu mu daan jëfe te ba suñ borom jaglee leen ko ay xikam wa man yuutal xikamata faqad uutiya xayran kasiran xam nga xikama moom maanaam mawhiba la mawhiba la maanaam lu suñ borom di seet nit ki rek jox ko ko la te du te du ko fàggu loolu nag suñ borom da cee jaglee loon sëriñ ma sàmm lu baree bare boole kook nag li nga xam ne da koo fàgg woon jaaroon ci jaaruwaay tax mu am ko mooy ilm bi mu amoon te daa ko jëfe looloo waraloon nag sëriñ Ibrahima Diop almashari wax ne dafa àggoon ci daraja bu kawe kawe ba bu ñu mënee ne moo kawe na gaay sax moo mën nañ ne kawe na leen waaye loolu day dellusiwaat rek ci li sëriñ waxoon ci ne sëriñ Touba moo may sëriñ Massamba may ñeneen ñi ci des ñëpp itam boo tuutalee kenn rek sëriñ tubaa ngay tuutal waaye koo ca tàgg rek sëriñ tubaa nga tàgg kon bu ñu nee faaxal afaadi la sëñ ma Ka mooy sëriñ day delluwaat ci sëñ mag gi rek ndax moo ko may waaw néewul tuutaluñ kenn bañ ne faaxal afaadi la moom sëñ Masamba kawe na ñëpp booba bul jàpp ne ñoo tuutal ñi gën jamonoon teeg moom te waaye sëriñ tubaa la ñuy jëmmal foofu ay mayam rek loolu lu jar bàyyi xel la fu ñuy waxtaanee ku baax ci ñi sëriñ tubaa baaxal bu kenn yëg ne dañoo tuutal <clears throat> sa sa maam waaye nañ jàpp ñun ñëpp ne Serigne Touba la ñuy tàgg rek Serigne Touba la màggal waaw euh, lool lu jar bàyyi la. ñetteel bi tam euh, li ma samba daan def ci wàllu gi ci wàllu xam-xam loolu day wane ne Serigne Massamba kaana yu xaaluhu mutaabiqan li xaali Cheikh al Xadim maanaam mutaabaqatul xaal seeni mbir dafa dëppoo woon euh, seeni mbir moog sëriñ Touba dafa dëppoo woon. loolu waral loon mu mën a dem ba fekk Serigne Touba xasida gu mbind wutalu ko mu mu xool ko gis ne tur yi moo yell mu def ko te bu Sëriñ Tuubaa ñëwee da koy saxal ca loola euh, loolu day wone ne euh, seen diggante ñoom ñaar mu taabaqatul xaal amoon na ci euh, Sëriñ Tuubaa Ndaw <coughs> li waxtam am nañ ci ay seddu wax Sëriñ Tuubaa xamlu na ci ay kilifa yu màgg yu bëree bari bokk na ci ka ca jiitu di Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu ak maam Cerno Birahim Mbàkke ak Euh, euh, sëriñ Mbacke Bousso ak euh, sëriñ sëñ Ndaam Abdourahman <coughs> te képp ci ñooñu kat ku ne xam na ne borom xam-xam la buy jëfe xam-xamam kon loolu de wane na moom ne kon aalim mu xaqiq mooy borom xam-xam bu wérli ko xam-xamam ba tey de day wane na moom kat ku daan jëfe xam-xamam la ndax képp ci ñooñu ay borom xam-xam lañ woon yoo xam ne ñu daan jëfe seen xam-xam lañ eh, bo loolu day tegtaleen ne sëñ Masamba kon borom xam-xam bu daan jëfe xam-xamam la loolu siiraam ak maanaam doxalinam dundinam tegtale na ko bu wér a wér tam eh, ba tey mu àllafaat yi nga xam ne da ko daan taalif eh, yi nga xam ne moom la mu àllafaat yooyu daan amee ak la muy làmboo ci biir ci ay wax ak ci ay maanaa dañuy gis ne loolu lépp muy tur yi ak jëmi mu àllafaat ak lam làmboo dañuy gis ne yooyu lépp dañuy tegtale jeex kum jeexoon ci ubudiya maanaam jeex kum jeexoon ci doon ci doon jàpp boobam ab jaam yàlla buy joxe jaam gi ci anam gu mat da cee jeexoon tàkk ak jeex gum jeexoon ci aju gim ajoon aju woon ci Sëriñ Tuubaa ci mboolem xeetu aju yi nag ñaa kon mu àllafaatam yim daan bind ak tur yim amee woon ak muxtawayaat yim làmboo moom mu yooyu booñ ko seetantalee day tegtalee fana u fil ubudiya mooy jeex gëm jeexoon ci ak njaame ak fana u fi taalluqi bil abdil xadim euh, loolu la ñuy tegtal euh, mu mel ni euh, daanaka jat li sëriñ waxoon ne lim lim seetlu ci ñi wax ñëpp maanaam ñeen lenn ci ñi wax rek seen <laughs> ay ay yenn ay ci ay seetlu lañ ci am waaye du lépp Euh, dafa dafa mel daanaka guddal rek la ñuy ragal moo tax ndax gars yi mbokk yi moom lu jar a wax yëpp wax nañ ko moo tax na dañuy ñaan yàlla mu may ñu dégg ak topp rek euh, ñu ngi sant yàlla baax na ci jotaay bi ndax seetlu nañ ne ku amul seetlu xam ne ak jëm kanam am na ci ak jëm kanam am na ci sëñ ndaw mii ni mu doon waxee xaside sëriñ Masamba yi ak ay muallafaatam ak seetlu yi mu ci am ak tur tur yi mu ci tudd yooyu yëpp bu njëkk daw amu fi woon Euh, loolu ak jëm kanam la ñu ngi ciy sant yàlla te gis nañ ne tam incha allah bu beneen jataay amee dañuy xeeb jataay bi euh, kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak taysir wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin euh, mooy faral di wax ne moom am na loo xam ne moom ak may la ndax ko sos dara dem ba mu yàgg àdduna bari àdduna bépp di am nga problème ndax yow taxaw waratu la te am na ci initiative yoo xam ne yéen a ko njëkk a génne waaye nag nit ñaa ngi koy roy nag kon waaxu rek moo ciy des beneen bi ci topp mooy sëñ mu daam lu mu junj lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy jàngal nit ki ca tarbiya woo ko yoonu murit moom loolu ngànta ma moom njàng mu ànta ko tarbiya ku fi yàqu rek moo la yàq kenn nattablu na fii ñu toll ci tuubaa bari na ci la ñoo xam ne lañ xam bañoon koo xam a gën ci ñoom bañoon koo xam moo gën ci ñoom dañoo wax ne sëñ Mbàkke bu sa waxoon na kenn ci ay doomam ne ko araf woo xam ne boo ko jàngee mu xamal la ne sëñ tubaa am na moroom araam na ci yow nga jàng ko ci jamono ji ñu toll téere yu bari yi ñuy yër te téere bu ci nekk ka taalif téere ba boo doon wër bàmmeelam ci àdduna bi doo ko gis aw tur képp la wun ca def tax nañu bari weddi la mag ña nekkoon ca xakim ba kat noonu na woon Cheikh Ahmed Tidiane daa waxoon ne dañoo wax ne nuru sa baay nuru jamono ko gën mu ne déedéet ku nuru jamono danga bari mbubb ndax jamono bis bu set mu sensé mbubb ñoo man damay waat sama baay damay nuruwaat sama baay loolu daa feeñ ci lañ wax ne am na kenn ci njabootug sëñ Afiye ku mas a ànd ak sëriñ Abdou Salaam mii ñu wax ne dañuy waxtaan ñoom ñaar mu ne ko man de sama problème mooy su ma góorgóorloo mën naa koo réussir muy sëñ Abdou Salaam wax ko ko nee na mu ne ko luy sa problème. mu ne ko sëñ Masamba doon sëñ sàmba nuru ko ndax sëñ sàmba yet la amoon problème man yaar laa am problème mu ne ko sëñ Masamba yan yat la amoon problème mu ne ko mat sëñ tubaa doom mat ko rakk mat ko taalibe man nag sëñ Masamba yaar rek lañ seq mat ko doom ak mat ko taalibe mat ko doom ak mat ko taalibe ndax du du sama mag moom nag fexe woon na ba mat rak sëñ Touba sëkk mat ko doom sëkk mat ko taalibe sëkk. man nag mat ko taalibe ak mat ko doom rek mooy sama yitte mat ko doom nag mooy fexe ba bokk ci ñi donn xam-xamam donn mbóotam donn mbóotam ndax dañu wax ne doom ñaar la doom ji donn sa sa baatin ak da doom ji donn sa alal nit nag boo donnee ay tabaxam donn ay otoom donn compte banque am war ngaa donn ay jikkoom jom boot war na laa yóbbu ci nga donn jikkoom mag ñi ne dañoo fexe woon ba bi ñu donnoo bi ñu donnee seen tool yi bàyyi donn seen seen seen seen mbooloo ma fexe ba donn seen jikko ya fexe ba doon seen jikko ya jamono ji ñu toll nag ñu baree bari dañuy fexe ba donn tabax yi rek ca doon doon jikko ja loolu nag lu mat a ndaw la ndax bu ñu demee ba coow bari rek am na lu xew wàcc nañ doxeenu mag ña wàcc nañ doxeenu mag ña ci lu baree bari te man nag boo ma bëggee weddi loo mag ñi ngir téere bi ma boole la téere bi weddi ndax man sama njariñ ca mag ña la ne ñun ku ne xam na ne lii ñu gëm topp ko sëñ tubaa xeet na ci ñu baree baree bari ñoo xamante ne bii jaaralewu leen ci téere bi dañu wax ne ne kuy daw ci si ñoom sàkket wala ku fekk ay xal nga tibb ko kooka ku ne xam na ne la ko yóbbee loola sëñ Tuubaa daa mas a woolu mu Mourou Moustapha mu ñëw mu ne ko Mouhamadou Moustapha mu ne ko mu ne ko fabal kawdir bi ca defal ma ci ndox sëñ munu Mustafaa fab kawdir bi tànq ci ndox mi def ci muy ndox mu sedd mu fab kawdir ba teg ca taalukaay ga ba mu tàng jër bay bax sëñ Tuubaa ne ko jottali ma ko sëñ munu Mustafaa fab ak njàpp sëñ Tuubaa ne ko loo ci jublu mu ne ko daa mel ne daa soppeeku mu ne ko ah, moo ne sa loxob kese bii di nga ko teg woon ci kaw mu ne ko jege gém jege sa wara yu moo ko wàll jikkoom mu ne ko kon jege ji leen nit ñu baax ñi dalay lay wàll jikkoom kon fexe ba jege mag ñi jàngaat leen Euh, lu am solo la euh, kon ñoo ngi ñaan baax a baax wax ji daal yàlla bu mu doon wax juy neen yàlla nañ ko dégg te man koo topp xam naa fi ñu toll ci fi ñu